بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi jàkkaarloog ñun su ngeen déggee ayatul quraan yooyu da ngeen xam ne bis bu mag dellu si na bisub lislaam bisub alxuraan bis boobu mooy ban mooy bis bi ñuy defal jàmbaar ji nga xam ne moo nekkoon ci barab bii ci njaareem ci kër gu mag di sëriñ Mor Mbaye Cissé bisam bi moo dellu siwaat le 31 décembre incha allahu ginnaaw bi ñu jotee ndigal ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk jataayub sëriñ Touba ñaan suñu boroom yàggal ko te wéral ko eh, ci ndigal ak kilifteefu sëriñ Sidi Mbacke mi nga xam ne mooy xalifatu sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Lahad mii xalifab sëñ Mor mi ngi leen di yëgal bis boobu nga xam ne moom lay fàttaliku waajuram wi waaye sëriñam di sëriñ Mor mbay Cissé di bisub alxuraan euh, sëriñ bi mi ngi koy yëgal mboolem jullit ñëpp képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah bis boobu euh, sa bis la ndax sëñ Mor ñëpp la fi nekkaloon bala noo sori sëñ Mbaye Ngiraan bu sëñ Mor mbay se mi ngi ci jataay bi nu jox ko kàddu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi ci réew mi yëpp te ñooy bokki Sénégal ak bokki sénégalais yi ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim yëpp. noo ngi nuyu ñëpp di leen siyaare bu baax di leen ñaanal itam suñu borom doon leen taw feex ci ndigalal sëñ Abdou Lahad Cissé mii nag nga xam ne mooy xalifa sëñ Mor Mbaye Cissé euh, bis bi nga xam ne moom lañ baaxoo fàttali ko suñ jàmbaar jooju nga xam ne moom la sëñ Mor wax léegi di sëñ Mor Mbaye Cissé boobu mooy agsi ñu di ko fàttali nag mboolem ñëpp xam nañ ne dee su ko fàtte waaye nag alxuraan moo ne fa sakir fa ina secret tan fa ul muminin ñu di ci woo nag mboolem ku dib jullit képp ku dem sénégalais ñi ci biir réew ak ñi ci bitim réew bàyyi wu kenn bàyyi fenn bàyyi ñenn ndax bésab tawfeex la bésab alxuraan la di bésab xasida di bésab sikrullaahi di bésab salaatu ala nabi kon bésab faj faju aajo la ndax li fi borom nekk woon rek moom lañ def bés bi ndax ci alxuraan la doon ndox ak xasida ak faj aajo doomu aadama yi loolu nag yéene nañ ko képp képp yéene nañ ku sa aajo fajo kon nag ñu ngi ciy woo képp bàyyiwun kenn góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp noo ngi leen di séentu le 31 décembre noo ngi ciy séentu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. maa ngi woo képp koo xam ne kii yaa ngi bokk ci gouvernement du senegal jiital ci son excellence le président de la république monsieur Macky Sall ak mboolem ay collaborateurs am wàcc ci biir région bi woo monsieur le gouverneur de la région ak collaborateur am ak bépp fonctionnaire bu fi nekk te bokk ci CRD bi. ñoo ngi la ciy woo di ci la ci yaakaar sa ñëw ak sa taxaw di ci woo chef de quartier ak notable yi di ci woo waa bitim réew comme ni ko Baye Mor Ngiraan waxee ñi nga xam ne man kóolóoral ak ñoom ndax kër gii ñu ciy wax sëñ Ibrahima Ndiaye ak sëñ Omar Gueye ci États-Unis Island maa ngi leen ciy woo. di ci woo képp koo xam ne kii fonctionnaire nga ci dëkk bi mbaa nga def jàngalekat ndax man li tax ñu jox ma kàddu dama def dama doonoon jàngalekat. kon maa ngi woo sama mbokk jàngalekat yëpp képp ku ma ci dégg boo mënee teew si baax na boo mënta teew si foo nekk na nga jàng alxuraanul karim yéen a yool bi sëñ Mor Mbaye Cissé ñaanal ko yàlla mu yokk ay leeram. kon mi ngi koy mi ngi ciy yëgal mbooleem ñi nga xam ne dañoo yor ay ndombay tànk te nekk fii ci njaareem rawatina ñi nga xam ne dañuy njaboot ci kër gi ku mel ne Soxna Fat Diané nga xam ne sët ci kër gi sëriñ baa ngi koy woo ci bis bi naka noonu itam euh, borom këram. DC Moustapha Guèye moom itam sëriñ baa ngi koy fàttali bis bi sëriñ baa ngi koy fàttali wóllëreem sëñ Daam Diop moom itam sëriñ baa ngi koy fàttali bu baax a baax muy kenn ci moom di wóllëreem naka noonu du faal Fall tam di wóllëri kër gi di wóllëri sëriñ bi sëriñ baa ngi ko koy fàttali sëriñ bi mi ngi koy fàttali itam maire dëkk bii ñu nekk di Njaareem di di maire Malick Fall moom itam sëriñ baa ngi koy fàttali kon sëriñ bi mi ngi koy fàttali mboolem ñi fi yor ay ndombay tànk yëpp kon ñu ngi leen woo ci turu sëriñ Moustapha Cissé mi nga xam ne moom moo mag ci sëti sëñ Mor ak sëriñ eh, ak sëriñ ak sëriñ Mor Mbaye Cissé mu sëñ Basirou Cissé mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Basirou Cissé ak soxna Mati Jigal mi nga xam ne moo mag soxna Mati Jigal mi nga xam ne moo mag képp ku sëñ Mor jur sa waajur wu jigéen moom war a mag si di leen wooy turu sët yëpp ñoo mënta du ñëpp par benn benn waaye ñoom ñëpp ngeen woo seen tur par kenn kenn eh, di leen woo ci bisub suñ jàmbaar ji sëñ Mor Mbaye Cissé ndax euh, bis la boo xam ne dañ ko ci fàttaliku di ko ñaanal ak fàttaliku ay jukkoom ngir man ca man caa roye. di ko yëgal Baye Fall Serigne Mor Mbaye Seye yëpp ci sama ci sama njiit ci sama ci sama njiit bi nga xam ne euh, Serigne Abdoulaye Cissé moo ñu tuddee woon Baye Fall Serigne Mor Mbaye ñu ngi ci woo ñëpp di wax leen ñu pësteef bi laxasaay yokkaat laxasaay yi defaraat bu baax a baax te xam ne bisu ñëw na. te ñun am ñu lu suñu Mor Mbaye Cissé ndax ba nekkee ndaw ba léegi fii la ñu jaar fii la ñu xam daal ji rek la ñu xam kon maa ngi ciy woo ñëpp di ci woo ñëpp ñu lakk ñu yokkaat laxasaay yi takkaat ko te xam ne bi suñu ne incha allah rabbi la 31 décembre ci kàttanu yàlla sama borom ñu ngi ci woo ñëpp bàyyi ñu kenn bàyyi ñu fenn bàyyi ñu kenn bàyyi ñu ñenn wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk taalibe yi ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaare xanaa di fàttali bisub sëñ Mor Mbaye Cissé bi ñu dëgmal moo am la 31 décembre Euh, maa ngi ciy woo sama mbokk turandoo Sëñ Mor Mbaye Cissé yëpp nag képp ku ne ci biir réew mi ak ku ne ci bitim réew yëpp ñu ngi leen woo ci bis bi ndax ñun daa am liggéey bu am solo buñ ci yor muy lu jëm ci wàllu tànt bi comme ni ko sëñ Mor waxee jëm ci wàllu baas yeeg euh, lépp lu jëm ci wàllu baas rek lu ajoog baas rek lépp turandoo yi ñoo ko yor kon maa ngi ciy woo ñëpp rek di leen soññ ci addiyee ji daayira bi di jël kàddu gi euh, ci turu njaboot gu jigéen gu Serigne Mor mbay Cissé Euh, wax nga ko sëñ Mor dale ko ci soxna Ndey Diop Cissé euh, defe naa ni soxna Ndey Tuuti Cissé euh, soxna May Ami Cheikh Cissé ba wàcc ci soxna Ami Cissé mële toog ba law ba teq madam Senghor mi nga xam ni mi ngi fële ci diwaanu Amérique di jël woote bi rek di ko teg ci képp koo xam ni yaa ngi ci réew mi waaye rawatina ñi nga xamante ni man ñoom laa seqal liggéey bi nga xam ni man yàlla dogal na may liggéey ci administration di ci woo gouverneur de la région de Diourbel muy suñu naataangoo ñu ànd di liggéey di ci woo monsieur le préfet du département moom it ñu seq liggéey ci département de Diourbel di ci woo monsieur le maire de la commune di ci woo képp koo xam ni yaa ngi taxaw ci dëkk bi nekk autorité notable personne ressource képp koo xam ni daal yaa ngi yewoo ci diiwaanu njaareem waaye lu jéggi diiwaanu njaareem képp koo xam ni yaa ngi ci senegal law ba teq jasporaa bi ñoo ngi lay woo ci bés bi. ni nga ko waxee nag bis bi moom. ñu ngi nuyu sunu waa kër maam sëñ ma Dem te sëñ Cheikh Dem nekk ca mbopp ba ak rakkam ñu ngi nuyu ñëpp sëñ maam Mor ak sëñ Mbay ñoo ñëpp waaw. ak sa sëñ Mbacke Jaxate sëñ Mbacke Dem di nuyu waa kër sëñ Bay Sarr sëñ Ismaïl Sarr ne ca tàmbalee ko ci xalifa ba waaw aw ci sëñ am di moom sëñ Assane sëñ am di Assane sëñ am di Xadi sëñ am di Fall sëñ bi la mooy xalifa bi waaye ñu aw ci sëñ sëñ am di Assane mu sëñ Assane awale ko ci nuyoo bi ñëw kër sëñ Mortala Fall ak kii kër sëñ Abdoulaye Fall sëñ Mortala Fall aw ci sëñ seex Bintu sunu wëllëre sunu xarit ak i rakkam di leen ko yëgal waaw di nuyu waa ko sëñ Maam Mor ba li nekk Kër Baay Laay di Maam Mor Gaye waaw sëñ Maam Mor Gaye di sunu wëllëre di sunu xarit ñu ngi koy yëgal di ko di ko yëgal euh, sama sëñ Saliou ak sëti sëñ maam Absa sëñ Mor sëñ Saliou Mor di ko yëgal sëñ Habib Kandji ak Baye Daara ak sëñ Omar Tandiang ak sëñ Mbacke Tandiang ndax ñu yëpp suñuy dëkkandoo la te lëri si mor la woon ak seen i waajur waaw ñu ngi ko yëgal biir Sénégal gi daal bàyyiwun kenn njaareem ni ko sëñ Cheikh Gueye wax gouverneur ba ci ki mujj rek maire sëñ Khadim Gueye waaw ñu yëpp ñu ngi leen ko yëgal commerçant yi ñi ci marché mënu du daayira yi association yi bàyyiwunu kenn daal bis baa ngi noonu ci sunu kanam noo xam ne bis la boo xam ne it sëriñ bi da koo jagleel sëriñ Saliou Mbacké ci fàttaliku ko ak ko ku nekk xam na ne ginnaaw bi mu nekkee di xalifab sëriñ Touba bi ci mujj it di eh, eh, digganteem ak sëriñ Mor Mbaye Sène ni mu demee woon moo tax sëriñ bi moom la jiital ci bis bi di ci fàttaliku it taalibeem bu mag boo xam ne wóolari sëñ Mor Mbaye Sène woon doonoon ko jaxasoo sëñ Mor jëloon ay njabootam indi leen fii ci daara ji ñu jànge fi alxuraan muy sëriñ Mor Kébé mook am sëriñ bi di leen ci fàttaliku di leen ci ñaanal waaye itam eh, sëriñ bi mi ngi ciy fàttaliku itam sunu kilifa yu baax yi nga xam ne ay waajur lañu waaye ci magi daara ji lañ doonoon ay jëwriñ ci liggéey sëñ Mor bi te ka jiitu di sëriñ Moustapha Guèye sëñ Moustapha Guèye daara al mii yoroon daara ji fii sëñ baa ngi ko ci fàttaliku ci bis bi di ko ci ñaanal naka noonu it sëriñ bàcc jigal doonoon moom itam ci magi daara ji moom it sëriñ bi da ko ci fàttaliku di ko ci ñaanal naka noonu sëñ na loo moom itam di taalibi sëñ moor bu jeexoon tàkk ci moom te woon Thiès moom it sëriñ bi da ko ci fàttaliku ren ci bis bi di ko ci ñaanal waaye nag di ci ñaanal jullit ñëpp sëriñ bi it bis bi ren mu def invité d'honneur am euh, ambassadeur Bachirou seen ca Gambie moom la sëriñ bi def muy invité d'honneur u bis bi moom it bis bi bisam la sëriñ baa ngi ko ciy séentu ngir kóllëreem digganteem ak moom. mboolem kilifa yi daara yi nekk njaareem ak kilifa yi fi nekk ci wàllu sëriñ bi li tàmbalee ci sëriñ Falilou moom sëriñ Bachirou waa daari Kamin Baye Souley Gueye ak mboolem daara yi fi nekk yëpp naka noonu it. ëtt yi fi nekk yëpp ak mboolem ñi jaar ci daara ji mason fee jaar eh, ak mboolem ñi nga xam ne itam ay kilifa lañu te dëkke njaareem le 31 décembre la incha allah fii ci njaarim ci kër gu mag na ko ñëpp bàyyi xel eh, yàlla nañ ko fekkee jàmm eh, jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gërëm naa ko jébbal naa ko saa téere yëpp tey ci lasraar ya ak tariyaax ya ak ñaan ya ful naa ko ku fi ñaan ak wér. mbaa alal mbaate ak juboo ñëwal Seex Mamar Mbay Siise ñaanal la naa ko